def kanam gi ak ñaari tente yi waaw yu tax ba bëgg démb jaay am saa yu gone yu tuuti yu juddu bëgg démb yu def li yàlla wax ñu ne ay ibaadu lañ ñoo ko firnde kon du leen ci fekk ah waaw boo laa xanaa bu lay ja bu lay ibaadu bi jiitoo àjjina da ngay waa ko fekk ko fa am da ngay taxaw ah bu lay ibaadu bi jiitoo àjjina da ngay waa ko fekk ko fa am da ngay taxaw àjjina ak safara rek a fi ñàkk feneen ci mën a def te liñ tax a dem àjjina mooy jëfe alxuraan ak sunna li tax a dem safara mooy sàggane ko ñax suñu bopp rek la ñuy def noo ko tey ne xijaab yàlla ko santaane bu fekkee ne bii téere boobu ñuy wax min haajul muslim nee nañu téere bi baaxut dara lax dara yu baax nag lax dara li mu baax dégg nañ ko almaratu kulluha awratun maa adal wajhi wal kaffay te li gën a wóor mooy la lax dara yu noppi borom lax dara yu noppi min haaj noppi borom min haaj moo noppi kenn rek wax te mooy yàlla kenn rek jot li te mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu dul loolu ak tàggantel ak ak tànkutel ak tànkutel bu ko defee xale yi ñu tamal leen ñuy xijaab ñuy muur seen yaram tamal leen bu ñuy génn ci mbedd mi ñuy dox ànd ak waqaar xale bu jigéen bi buy dox da nga koy contrôlé ne ko bul génn ci mbedd mi di siiñ góor gu la romb nga xool ko siiñ ko ree ko may ko aajo loolu jaarul ci ci jigéen waaw jigéen bu dee dox ci mbedd mi kanam gi leer lool boo ko xoolee mu xool la boo ko xoolul mu xool la boo ko ree mu ree la boo ko réewul mu ree la xanaa mooy kay xanaa mooy kaay doomi njaaloo joo gis doomi njaaloo joo gis ci xol la bàyyi ko woon kon boog jigéen ji na dox dox bu bu jub sa xale bu jigéen yar ko ci muy dox ci mbedd mi ànd ak waqaar ànd ak wegu ànd ak kanam goo xam ne xale bu góor bu sàggan sax bu ko xoolee du ko ñemee tudd wala fi nee nañu bukki bu yebee ponkal te doxin wala xale bu góor bi lu mu say say say say lu mu mbëndaari mbëndaari mbëndaari boo xamee ni bii yëpp na xale bu jigéen bi rek da koo xool ci kanam gi gis ko si mu nga moo tax ba nañu teel a tamal xale yu jigéen yi bu ñu nekkee ci kër gi ak ci mbedd mi ñu fermer seen kanam ci kanamu góor ñi bu ko defee jàmm mën a am ci diggante góor ak jigéen mu nga bu ko defee xale bi nañ ko teel a yar toqi ko ci bu mu jaar ci kanamu kuy julli xale bu ndaw mën naa réere ne kuy julli kër war sa jaar ci kanamam waaye nañ ko ci yar xam la ko loolu xale bi ñu mooy teel ko ay wax yoo xam ne wax yu sellul la saaga xaste wax ju ñaaw nañ sant xale bi ne ko nay moytu loolu képp koo xam ne dégg na doomam mu saaga bis ba mu ko jëkkee dégg na fexe ba def doom ji loo xam ne doom ji du ko daaw fàtte na fexe ba def doom ji loo xam ne doom ji du ko daaw fàtte néew ma la ko mbugal néew ma la ko mettal na ko def loo xam ne du daaw fàtte nay lu neex nay lu naqare ba nga xam ne bu bëggee tey saaga rek xel ma dem ci bu ko defee mu bàyyi ko mu ngoog wante bu fekkee ne bi yow yow baay bi da ngay saaga yow yaay ji da ngay saaga boo saagaa sa doom ay nit ñu ñàkk fayda ba tiim seen doom seen saaga day waaw bu fekkee borom kër gi day saaga waa kër gi nañuy def saaga baaxut des ci des ci bañ a yar xale bul saaga bul xaste bul jëw waaw bul gi mer te jotul te soo meree bul xuloo mu ngoog bu ko defee kon xale bi ñu tere ko xuloo xuloo mer mën naa am bu jotee te na nekk ngir yàlla waaye mer boo ko def xuloo mu ngoog bu bu mu wax sama ay wax yu ñaaw mu ngoog bu mu wax ay wax yu ñaaw su fekkee ne ni nga koy bëgg a def na nga ko ko leeral bu baax a baax loolu tam tekkiwul ne xale bi day noppi nag du wax ah kay dana wax waaye na wax lu rafet te def lu rafet mu ngoog bu ko defee xale bi buñ ko dee yar éducation sanitaire ci wàllu set fu muy tàmbalee mooy ñu tamal xale bi muy set bis bu nekk mu sang bu waree watu wat tamal ko muy lewi ay weeram buy sangu bis bu nekk bisu àjjuma bu ñëwee mu sangu teg ca cangaayal sunna lool yi bisu iid tam bu ñëwee naka noonu di sol yére yu set di toog fu set mu ngoor su ko defee ñu tamal ko mu toppatoo ak cet ci yaramam ak ci yéreem ak ci néeg bi mu dëkk xale bi nañ ko tamal su fekkee amul ku koy baleel néeg bi nañ ko tamal mu koy baleel boppam nañ ko tamal muy tëdd ci dara bu set tamal ko balaa muy lekk mu raxas ñaari loxoom ba mu set bu lekkee ba noppi itam mu mar ay loxoom ba mu set te bu martoo ba noppi mu raxas nañ koy tamal muy soccu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu dul woo nag bañ a lëjal sama xeet wi dinaa leen ne bala ñoo julli julli gu nekk nañ soccu na xale bi di soccu subaak ngoon guddeeg bëccëg ci waxtu wu ne mu ngoon bu dee bëgg a julli bu dee bëgg a lekk bu lekkee bay bëgg a tëdd guddi wala yu mel noonu xale bi nañ ko tamal digg doomu ci lekk ak ci naan bu ko kenn xëppatal bàyyi ko muy lekk lekk gu bari lekk gu bari jëriñul dara day tax a foq la te njëriñal lekk gi nekkul ci bariwaay bi mi ngi nekk ci qualité bi njëriñal lekk gi nekkul ci bariwaay bi mi ngi ci qualité bi ak li ñu nekk ci ñam bi ci ay vitamine ak ay calories na nga fexe ba mu doy waaw su fekkee ne bii seetlu nga bu baax environnement bi nga dëkkee doo fa ñàkk gis lu nga xam ne lii mboolem yi nga soxla pour mën a am dund bu baax ndax malnutrition du la daal dal ko fa mën a am bi indillah yàlla sédd na ñu am ñu doole ak ñu néew ñu doole farlu rek moo des ak seetlu su ko defee xale bi ñu dàngal ko balaa muy lekk mu sàmmoon teg teg ji ni lekk ci islam na toog na lekkee loxol ndeyjoor balaa muy tàmbali lekk na wax bismillah balaa muy tàmbali naan na wax bismillah bu lekkee ba noppi wala mu naan ba noppi na wax ñaan nga xam ne gi moom la ñu war a wax gannaaw lekk mu ngoog alhamdulillahi alladi atamani hada wa razaqanihi min gayri hawlin minni wala quwa maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma leen ñam wii te moo ma ko wërsëgal du sama pexe du sama doole ñaan googu yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ko lekk ba noppi na nga ko wax muy ak cant ak cant yàlla la ñu dangal ko xale bi te te bàyyam na koy wax su fekkee bàyyi bi di ko wax du ko mën a jàngal xale bi nañ koy jàngal bu dee lekk na lekk loxol ndeyjoor na lekk ci kanamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama loolu la digaloon ngóos ba mbokkee moom loxol loxol xale bi bëgg a doxantu ci biir ndab li mu ne ko yaa xulaamu sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wax xale bi ne ko bala ngaa tàmbali lekk tuddal yàlla te del lekk ndeyjoor te del lekk ci sa kanam loolu lépp dañ cee war a yar xale bi jàngal ko te itam bu gan ñëwee wala ak bu sa gan nekkul sax nañ tere xale bi muy wane ay mandargay fuqale lu demee ne jëkk a tàmbali ci lekk gi wala yu mel noonu wala di xool ñam bi wala muy xoolee gan gi wala yu mel noonu loolu lépp ñu tere koo xale bi xale bi nañ ko jàngal bu saxee ab tip na ko sàqami ba mu mokk mooy sunna sayyidina muhammad na ko sàqami ba mu mokk mooy sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu mokkee mu wanaasu ko doora doora sax beneen tib waaye tibu sàqami ñetti yoon warax tibaat sàqami ñetti yoon warax bu fekkee xale bi da ko bëgg a def dañ koy jàngal nu ñuy lekk ci islam bu ko defee xale bi na na ko baayam wala ki koy yar jàngal tàggat ko toqi ko ci aada yi nga xam ne dana joxe wér gi yaram ci lekk ak ci naan ak ci nelaw yépp bu mu lekk lu ëpp li mu soxla xale bi buy lekk bu suuree na bàyyi bu bu suuree na bàyyi buy naan xale bi buy naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am nu mu jàngalee aw naanin te man xaw ma xaw ma sax mag ñi xam nañ ko ngeen ba wax xale yi yonent bi dafa bëgg kiy naan na sàmmoon teg teggin yii li muy naane na ko téye ci loxol ndeyjooram na wax bismillah door a tàmbali naan bu dee naan tam bu tegee ba naan ak lëf na teggi tegaat teggi tegaat teggi na naan ñetti yoon wala ñaar waaye xaw ma da ngaa mar xaw ma dafa tàng xaw ma da ngaa yàkkamti daal di jolu kaas bi rek wala nga jolu pot bi naan ba man ni door a teg loolu bokkul ak li yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bu nga xam ne Tirmidi moo ko solo mu jële ko ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qaala qaala rasulu sallallahu alayhi wa sallam laa tashrabu waaxidan ka shurbi lbaciir walakin ishrabu masna wa tulaata wa sammu ida antum sharibtum wa ahmadu ida antum rafactum yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallama bu leen naan benn naanin ni gëléem guy naan yow julit bi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam boo maree di naan bu yëkkati pot bi naan benn yoon ba man di mel ni gëléem waaye dee leen naan ñaari yoon wala ñetti yoon naan teggi naanaat teggi ba muy ñaar wala muy ñett yonent bi teg ci ne sallallahu alayhi wa sallam mu teg ci ne su ngeen naanee na ngeen tudd yàlla bu ngeen bàyyi ngeen a naan na ngeen tudd yàlla bu ngeen naanee baagal ngeen sant yàlla kon boog loolu mooy teg gi ni naan ñu war cee tàggat xale bi dàngal ko loolu ñuy wax tux tuxum cigarette tux yamba yooyu yëpp ñu tere ko xale yi mu nga ñu tere ko xale yi tux dafa xaraam am na ay feebar yu bari yoo xam ne tux dana ko joxe tux dina joxe cancer cancer de poumon tux dina joxe dina dina joxe ñàkk appétit tux dina téye ak noox du mën a génn ni war a génn tox dana andi ak tayeel tox ay ay ay ay musiba ak ay fitna bari na mag mu ci daan tox na ko bàyyi ngir yàlla te xale yi dañ leen yar te tàggat leen ci ñu moytu tox moytu itam drogue ak mboolem xeet drogue yi moytu lépp luy yóbbu xelum doomu aadama ci yi ñuy naan mbaa yi ñuy lekk mbaa yi ñuy jëfandikoo te way jur yi di faral di seetlu seeni doom mbaa génn ñu benn bis ñëw xeeñ cigarette bu sa doom xeeñee cigarette tàmbali na tox fexeel ba yar ko génne ko ci loola balaa mu koy tàmm ma ngoog su ko defee bu fekkee ci yaru social la war nañoo jàngal xale bi ci bi muy xale aadaab ijtimaiya bi nga xam ne ñëw na ci islaam tàmbalee ci yërmande xale bi nañ ko yar ci mu am yërmande bu rombee moroomum xaleem mu nekk ci loru mu dimbali ko rakkam mu mu yërëm ko di ko dimbali bu rombee gumba bu bëgg a jàll mu yërëm ko jàpp ci yet wala jàpp ci tumba jàllale ko yërmande tamal xale bi topp ko ci def lu rafet ci dëkkandoo sab xale da nga koy teel a fexe ba mu xam dëkkandoo xam àq dëkkandoo yàgg koo yónni ci ki nga dem dal kër mu di fa yóbbu ay xéewal di fa yóbbu xibaar yi jàmm bu ko defee mu gis jàmm diggante ñaari borom kër yi dëkkandoo bu ko defee moom itam mu mën a seq ak jàmm ay moroom yi borom yi mu dëkkandoo bañ leen a lor mu xam ne dëkkandoo dee su ko lor te dees di jëf lu rafet jëme ci moom mu ngoog te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa santaane koy def lu rafet ci dëkkandoo bu feebaree nga seeti ko bu la nuyoo nga fay ko bu gaañoo nga topp ko bu gaañulee nga jaali ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xaqul muslimi ala almuslimi xamsun raddu salaam wa iyaadatu almarid wa ittibaau aljanaiz wa ijabatu daawa wa tashmitu aafis ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam aqi jullit ci moroomu jullitam juróomi yëf bu la nuyoo fay ko bu feebaree seeti ko ah bu gaañoo toppal ca tàdd ga gunge ko ñu suuli ko bu la invité ca këram te lu xaraam nekkul ci invitation ba wuy ji ko bu tislee nee ko yarhamukallah andil wu rafet nekkil wu rafet ci diggante jullit xale bi ñu teel koy jàngal loolu yar ko ca toqi ko ca ba tey xale bi ñu teel koo jàngal moom mu bañ a dugg ci lu yoonam nekkut mu nga bañ a dugg ci mbir yoo xam ne yoonam nekkut ca su baay bi dee wax ak ay mag mu di ca dugg di doog wax de naam xale bi baayam mën na koo may aslaf ci xorriya bu mu mën a wax ak moom war na koo may war na koo may aslaf ci xorriya bu mu mën a wax ak moom bu mu mën a dugg ci wax joo xam ne yoonam a nga ca waaye wax ji nga xam ne ji jëmul ci xale bi yoonam nekkut ci te munu caa ne mu koy wax ak keneen bu ci doom ja bëggee dugg mu dàggal ko ne ko dafa am ay wax yoo xam ne war nga cee dugg mën nga caa dugg ak ay wax yoo xam ne waroo caa dugg mu wow bu ko defee tere ko saaga comme ni nga ko waxee woon mu nga xale way jur wi di moytoo wax ak xale bi ay wax yu ñaaw léegi mu ko dàgg ci moom dàggal ko ay wax yu rafet tamal xale bi muy déglu xalaati keneen mu nga su ko defee mu tamal xale bi ak dal mu nga ak dal rawat na bu gan ñëwee mu wax ndànk te dox ndànk bu ko defee xale bi nga ne ko mu moytu ab jàngalekat bu bon wala àndandoo ju bon ju muy àndal di dem jàngu ba xale bi nga teel ko xamal ne ko bu fekkee góor la moom mu takk moom mu takk jaaram or mu xam ne dafa xaraam ndax sa yàlla da koo xaraamal ba mu sol sooy nga teel koo xamal ne dafa xaraam bu fekkee góor la nga xamal ko ne ko takkub lam daa xaraam ay xale yu bari yu góor seeni waajur daañu leen di takkal lam sa waxee ñu ne garab la du garab du garab luy bijj musiba la ak luy bijj balaa balaa ak musiba mun ta weesu wuuteeg ndigali sayidina muhammad yàlla da cee tëkkoo yàlla daa wax ne falyaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim yàlla daa wax ne ñi nga xam ne dañuy wuuteeg ndigalal muhammad sallallahu alayhi wa sallam nañu moytu fitna dal leen wala mbugal mu metti kon nag yow mii nga xam ne da ngaa wuuteeg ndigalal sayidna Muhammad di takkub lam wala nga bàyyi sa doom muy takkub lam nga yaakaar ne garab la déedéet du garab du saafara jàngoro la jàngoro yi wuute ndigalal yonent bi la kat day bëgg a daanu ci sa kaw kat di ñaata dégg la am ah bu daanoo ci sa kaw ñaata dégg lay jamono loolu mooy bëgg a ñëw ci yow mi nga xam ne da ngaa bàyyi sa doom ah mu di jigéen muy solu te du xijaab wala nga bàyyi sa doom di góor muy takkub lam nga naan dama koy takkal ndax daf maa nuru mbaa dama koy takkal ndax garab la du genn du garab jàngoro xale bi nga jàngal ko warmaal mag mu nga warmaal mag waaye kat wa nee na ngay yërëm ko ne kay warmaalu mag te sawar ku sellalul na nga sellal warmaal mag mu nga mag def koy warmaal loolu tubaab yi xamuñu ko tubaab yi mënuñu koo xam tubaab yi dañoo jokkuwut ci yàlla tubaab yi amuñu alquran tubaab yi amuñu leeruk waxyu tubaab yi dañoo sànku buñ bëggee foofu suñu doom yi nag sànk leen ci trop droit trop droit de l'enfant xam waxi tappale rek waxi caaxaan rek dañuy wax xale bi ne ko mag da nga koy respecté da nga koy warma soo ànd ak sa baay mbaa sa muallim bi lay jàngal wala wala wala wala sa nijaay wala sa mag bu ko jiitu bul jaar ci kanam toppal ci gannaaw toppal ci gannaaw boo ànd ak sa doom ngeen bokk jóge jàkkale ngeen di ñibbi mun a yomb sa kanam ne ko kaay bul defat loolu nangam ak nangam la ñuy ànd ak baay wala mag wala nijaay wala ñu noonu mu ngoog su ko defee bul ko bàyyi mu dëkk laa dugg ci néeg yar ko soo bëggee sa doom da nga koy yar mu ngoog nga jàngal ko ay teggin bu ko defee ba tey nga jàngal ko fu mu war a sànni ay salte bul bàyyi sa doom muy sànni ay xolliti banaana xolliti gerte ci buntu néeg ak ci digg kër gi mu ngoog wala muy xotti ay kayit di sànni fu ko neex waaye jàngal ko mu am ab pañe boo xam ne mooy sallatul muhmalaat muhmalaat ci kër gi mu defa def ay salte mu ngoog bu ko defee mën koo tàmm ci penc bi bu ko defee nga teel a xamal xale bi ne ko aw yoon set ak ëtt set ak néeg set fu salte nekk nga jëlee ko fa ci maani la ilaha illa allah la bokk yonente bi sallallahu alayhi wa sallama moo wax ne al imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imatatu al ada an al tariq yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallama gëm yàlla juróom-ñaar fukki sel ak nangam la ba ca gën a kawe moo di yow mu wax baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah nga wax ko fas ko jëf ko ba ca gën a suufe mooy nga jaar ci aw yoon fekk fa luy lor nit ña nga jële ko fa kon boo fekkee ci yoon wi xale bi da nga koy da nga koy toq ci bu fekkee ci yoon wi ak dëkk wala xottu butéel wala xolti ba daana woo xam ne mën naa lor nit mu jële ko fa xale itam ku mënee toppandoo la sa xale bu dee jàngi ci école ba di ñëw dee ko xool mën naa am benn bis mu ñëw indaale ab toppandoo bu bees ci waxin wala doxin wala doxalin woo xam ne mën naa am mu baax mën naa am mu bon saa boo demee ko ci sa doom aw toppandoo gu muy toppandoo ci école ba muy dàggee lu baaxul dindi ko akuk teey bul xëtër xëtëri bul gaawantu bul gaaw kes ko jëflanteel ak moom ci tey rek waaye fexeel ba dindi loolee nga xam ne jëf la ju bon ju muy bëgg a toppandoo ci ay moroom ak i àndandoom ci jikko ci wax ci jëf ci lu mu mën a doon mu ngo su ko defee xale bi boo koy teg ab liggéey na nga ko teg lu mu mën xale bi boo koy yónni demal jox ma keesu suukar gee nekk attan na ko waaye bu ko yónni kees bu diis carton bu diis boo xam ne la ci nekk attanu ko bu ko def teg ko ci ab liggéey lu mu mën bu dee am ya aw yaramam la teg ko lu man bu dee am xelam la teg ko lu man te ngay wax ak moom ca fa niwab xelam toll mu ngoog bu ko defee soo ko dee laa biire di ko jox ay yoon yu mu war a jaar ak lu mu war def ak lu mu war a bàyyi nga sàmmonte caag yoon bu mu nekk gone na nga xam teeg moom ndànk ndànk di yéeg moom ndànk ndànk da ko muy mën a àgg fu nga bëgg ba tey xale bi war nañ koo jàngal ak wakirlu ci yàlla gannaawu sabablu sabablu daa war wala fi nee nañu yàlla yàlla bay sa tool kenn du ne yaax yaaxaaral bàyyi say wargar naan yàllaa ko dogal ah yàllaa ko dogal waaye dogalu yàlla boo gis wala fi nee nañu tànk tànku tànku bu mu daa fa kon nag xale bi da nga koy jàngal muy sabab lu def li ko war waaye nag bu defee li ko war ba noppi la yàlla dogal moom na ko neex muy lu muy muy muy muy muy lu naqari muy lu tàng muy lu sedd muy lu naqari muy lu neex na ko jéem a nangamte ko te mu neex mu tam sant yàlla mu ngoog bu dee ci wàllu éducation sportive yar xale bi ci wàllu yëngal aw yaramam nañ xam ne war nañoo tàgg yar xale yi yaru tàggat yaram war nañoo jàngal xale yi ay xeeti poot yu lislaame yoo xam ne dina tax seen yaram yëngutu seen i sidit màgg seen deret daw seen i yàqu dëgër ak seen i yàq waaw war nañoo jàngal xale bi karaté masalan karaté am pole moo xam ne mën nañ ko jàngal xale bi waaye nag nañ ko xamal ne ko kat boo ko mënee bu ci bu bu ci jag ndigalal yàlla bu ci noggatu kenn bu ci tooñ bàyyi bi nag teel a jàngal doom ji war fas waaw teel koo jàngal feey teel koo jàngal sànni ca barab jëm ko war a defee bu mu sànni ci kër di fa xaañ nit wala mu fay loqi doomi jaambur ca barab yam ko war a defee bu ko defee mooy tax xale bu màggee fekk préparé na ngir mën a jihaad am na aw yaram bu dëgër Umar ibnu Xattaab nee na al radiallahu anhu allimu awlaadakum rimaayata wa sibaaxata wa rukubal xayr Umar nee na jàngal leen seen i doom sànni jàngal leen leen tam feey jàngal leen leen war fas bu ko defee xale bi boo koy jàngal war fas nga ne ko nag loolu yi nga dégg ñu naan PMI ay fas yi ay am ay numéro ñu di ko ñu di ko ñu di ko teg ab xaalis moom daa xaraam xale ko ne ko PMI daa xaraam boo si amee ab xaalis loo julli kenn du ko nangu man xaw ma ñiy lap ci géeju millionnaire xaw ma fu nu jëm kenn ci saxaaba yi Saad daa mos a wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko damaa bëggoon nga ñaanal ma ma am ijaaba ndax xam ngeen ijaaba ijaaba mooy su ñaanee yàlla nangu yaakaar naa kenn ku nekk ci ñun am na ay soxla yu muy faral di ñaan yàlla am déet kenn ku nekk ci ñun bëgg na bu yaa bu ñaanee yàlla nangu ñaan nga am déet Saad na yonent bi damaa bëggoon sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an Saad damaa bëggoon nga ja nga ñaanal ma ma am lijaaba ba lu ma ñaanati yàlla nangu ko yonent bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam soo bëggee loo ñaan yàlla nangu ko del lekk lu lew del lekk lu lew moo jaay yow jullit bi nga xam ne bii dangaa xoos tàmbali di xoos ngay xoos di xoos di xoos ba am ñetti télé ñu yóbbu la Paris nga gis nasaraan yi nga xam ne yonent bi naa nga wuuteeg ñoom aw dundin nga dem gis leen ànd ak ñoom dëkk ak ñoom lekk ak ñoom naan ak ñoom fecc ak ñoom way ak ñoom aw ay fan dugg ci avion bi dugg ci gaz bi dugg ci wata yi ñëw ñu jox la boule bi nga tourné nga ne juróom-ñetti million lakk nga ci géeju xaram ba faw yàqu nga ba faw yàqu nga ba faw yonent bi ne saadu soo bëggee loo ñaan yàlla nangu ko del lekk lu lew ne ko na nga xam ne na nga xam ne aw yaram wu sax yàpp wu sax te fekk la nga lekk ba mu sax lu xaraam la yàpp woowee suuf woowee safaraati gën a yëg kenn ku nekk na seet ci nun mbaa amul aw suuf wu sax ci moom suuf woo xam ne safaraati gën a yëg àjjana yonent bi ne saadu nit dana sax benn tib bu lewul lekk ko ñu teg ci ñeen fukki guddi lu mu ñaan yàlla du ko nangu lu mu jaamu yàlla du ko nangu kon nag su fekkee tubaab yi dañoo naan kaani ba xàmmeetuñu lu baax ak lu bon jullit ñi nañ dellu ci alquran yi yàlla ak sunna sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam seen bopp te def la ñu war a def te bàyyi la ñu war a bàyyi kon xale bi nañ ko jàngal war a fas waaye nañ ko xamal ne ko pays mi daa xaraam teg ci teg teg teg ci kaw course dem dafa xaram mu ngoog waaye nañ ko jàngal war fas nañ ko jàngal tàggat yaram boo xam ne bii day tax yaram wi dëgër ba bu ëllëg gi si bëree mu doon jullit bu dëgër boo xam ne suñu dajee ko bi yéefar man koo semmal loolu lañ ci jublu po ci islam du pour sànq jamono po ci tubaab pour sànq jamono la yàq jikko yàq ruu neenal julli waaw ba noppi doon dorog xam ngeen ne léegi football bi dorog la football bi drogue la bu nga xam ne bi saa bu politiciens yi bëggee ngeen fàtte seeni problème ñu créé match bu bees match bu bees bu mag diggante ñaari équipe yu mag ñu daal di dem stade ba daal di rangi kenn ku nekk bëgg biir ñu yendu fa duñ julli takkusaan duñ wax lu ci jëm gouvernement bi daal di am jot mën a def li mu bëgg def lépp loolu bëri moom xeetu pop baaxul football bu nga xam ne bi da ngay def kaas ngeen say poot ne ci biti football boo xam ne bii jigéen daan wëngoo ngiral ci ci ci pantalon wala mu sol faf faf sort jigéen ji sol sort yokk mees yi ba mu ba mu mel ne gërëmu ba mu mel ne jéggiinu gërëmu buxtu jëm sawar muy ñappaas ñappaas jub seetment yor ak bal da koy sànn ci kawal su booxun yi jigéen su booxun yi jigéen yàq nañu yàqu nañu yàqu réew te tubaab yàqu réew loolu dañuy teel a xamal xale yi ne moom po dafa xaraam moom po dafa xaraam góor tam bu dee bu dee day fon nag po mu lislaame waaye po moo xam ne mi da nga sol kilo ju gàtt po moo xam ne day tax nga fàtte julli po moo xam ne mi day yàq saw jàng bari na élève école boo xam ne bii da daan xëy di jàngi école ba mu yàgg benn bis mu seen ab bal jàng dafa di football doxe ca saa bu génnee di jàngi bàyyi ba yaakaar ne ma nga ca école ba maître ba yaakaar ne ma nga ca kër bàyyi ba fekk gone gaa nga si bëccëg di football ba jàngi mu sa yàqu football bu dee yàqum njàng di yàqu jikko di tax a manqué julli di tax am gouvernement di la foy te doo ko yëg day xaraam ba ba loolu yi dañ mu door a nagal waaye foy islam yi bari nañu ahadis yi ñëw di wane ne jullit ñi war nañoo tamal jàngal seen doom ay poy l'islam itam bari nañu lool tabaraani solo na ci isnaad jayid jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal kullu cheyin laysa min dicri illahi fa huwa lahwun aw sahwun illa arbaa xisaal mashyu rajuli bayna algaradayn wa ta'dibuhu farasa wa mulaabatuhu ahla wa taalimuhu sibaa yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne bokkul ak tudd yàlla jëmul ci liggéey ak jaamu yàlla loolee am pomm yu war a bàyyi la lu dul ñeenti xeeti poy yi ñoom baax nañu nit kuy dox diggante ñaari xaras ci sànni wala nit koo xam ne kii day tàggat aw fasam di ko war di ko dajal wala koo xam ne day fo ak njabootam soxnaam wala koo xam ne kii day jàng wala muy jàngale féey ci ndox ak soo def nii war na féey ak war fas ak sànni yonent bi daa bëgg sallallahu alayhi wa sallam nu jàng ko te jàngal ko xale yi te tàggat leen ci kon boog xale yi wayjur yi war naa encouragé xale yi ay doomam war na leen a yar te encouragé leen ci ñu yar seen yaram yarub wér gi yaram ba mu dëgër mu nga xeeti gymnastique yi nga xam ni dagan na te lislaame na mu di ko ko jàngal di ko ca sant mu nga football da ngeen li ma leen ci wax saa bu ci tubaab bi génnee politiciens yi génn ci boo xamee ne bii football taati nee ni jigéen ak taati nee ni góor génn na ci ak pooji pooji góor génn na ci boo xamee ne bii football nekk ca stade ba julli jot te doo julli génn na ci ba mu nekk rek am po duutu yàq jikko duutu yàq njàng am njàngum diine diin kenn du ci sànq jamono duutu nekk ci drogue su boobaa mu dagal waaye nag seen yooyu ci lay xaram ba boobu ba boobu dañ mu door a mën a dagal mu ngoog bu ko defee kon ñu xam ne po ci islam dafa am lu ko tax a jóg po ci tubaab sànq jamono waaye foo ci islam la ko tax a jóg mooy dëgëral aw yaram ba jul mën a xeex jihaad fi sabilillah mbokk jullit yi lii as lëf la ci ni ñu war a yare xale ni ñu ko war a former ci l'islam as lëf la ci droit de l'enfant ci ni islam tërëre yal na nu yàlla may dégg ak jëfe ak topp ndigali sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na nu yàlla may tawfiq ba nu mën a dellu si ci dëgg gi yar sunu bopp yar sunu góor yi ak sunu jigéen ñi ci jëfe ndigal borom asmaan ak suuf aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم في ليلة لما نام لمن أراد أن يتم الرضاعة أيدي في سورة البقرة سبحان الله دفع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة yàlla dafa wax ne yaay yi nañu nampal seeni doom ñaari at yu mat sëkk ci koo xam ne kii bëgg naa matal dàppug nampal noonu ko déggee loolu la borom bi tabaraka wa taala wax mooy yaay ji bu amee doom di ko nampal na ko man na ko nampal ba ñaari at yu mat am jigéen ñi nga xam ne ñii bu ñu nampalee at dañuy daal di feral xale bi am na sax ñuy dem ba naan góor xaw ma bu nampee lu bari day tax xel ma gàtt ak ay waxtaan waaye nampal ak feral xale bi ka fekk amul lenn lu ko waral am nga soow mën nga koo nampal soow mi amul seen sikk si nekk suñu xale bi li nga xam ne lii mooy njubug alquran mooy nga nampal ko ba ñaari at yi mag suñu borom yàlla nag bu ci tegee liman arada an yutimma radaa ci ku bëgg a matal dàqub nàmpal wax jooju day wone ni aaya ji doguwul doguwul ci na ñaari at yi mag dogu goo xam ne gi ku ko deful dañ ci am bàkkaar tawjih la ak inshaat yaay ji bëgg a xam nàmpalin wi gën yaay ji bëgg a nàmpal dàqub nàmpal bi gën a mat gën a baax xam ne ñaari at la ka nàmpal lu ko yées faral su fekkee am na ay asbaab yu wóor yu ko jar ah kon liman araada an yutimma radaa teggil na ko bàkkaar su fekkee amul ay asbaab yu wóor nag moo xam ne kon topp na bànneexam ba jàpp ndigal